noo def ak foo ñuy woowee. waaw maa ngi wootee bitim réew bi lépp tur bi. lebal nañ la ko avec plaisir. waaw eh, nag dama la dama la xaw a ak ci Bassirou Diomaye. Mhm. ndax yaa tax ma xam ko. dëgg la. bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay def sorti bi nga daan def sorti. Mhm. mooy maa ngi école. Mhm. kon ma lay bi ma lay seetaan yàgg na. Mm-hmm, dëgg jërëjëf. da dama dama xaw a a xam nag sa sociologie. Mm-hmm. xam ni ngay xalaatee. Mm-hmm. xam yan genre nit nga. maa ngi fàttaliku euh, bi ngay bi ngay interviewé euh, sa sa bàjjan bi la waalo waalo la. <laughs> Aïda Ndiong dëgg la. ñi koy activé muy muy muy. def ay cadeau euh, sandwich élection yi. Mm-hmm, mm-hmm. ma koy défendre ma ne ko jëmbat nga ñii la defoon. <laughs> dañuy dañuy fal ci straat mu koy maye. walaay dëgg la dëgg la. waaw kon béykat bi nga doon. Mm-hmm. maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la parce que. amiin yaa rabi tamit dafa doon ay béykat. amiin yaa rabi yàlla. waaw lii nag man dafa am benn affaire boo xam ne ma ko bëgg a wax. waaw bisimilah bisimilah képp koo xam ne. thème mm-hmm. bi intéressé na la moo mu gën si am attention daa mu gën si am ak seetlu mm-hmm. gën si am euh, mm-hmm. maanaam képp koo xam ne doon na Sénégalais wala doon na koo xam ne euh, contribuable na si dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal bëgg naa nga jàpp li xew vingt six septembre

si yoo xam ni kenn servir ñu ba fi may wax ak yow nii benn élément bu objectif li dul ay wax maa ngi fàttaliku bi muy dal Grèce boobu Grèce dafa manipuler deux mille neuf ay finances publiques am te dañ ko financé woon pour Grèce mën a dugg zone euro bis bu mu feeñee taux d'intérêt yi nga xam ne Grèce moom la daan fay pour mhm. am bor pour mhm. financer ay projet am mhm. dafa ba ñu daan suspendre ay yenn transaction financière nga daan gis di pays européen ay camping jardin d'enfants yi tëj nit ñi di orange ay ay ay ATM ay auto ay distributeur automatique nit ñi di xiif amuñu lu ñu lekk ba tey ji may wax ak yow soo demee Grèce dañ fay gis xiif dañ fay gis sonn démb yaa ngi dégg ñu ne la Sénégal yëkkati na capital fay six pour cent taux yooyu six pour cent yooyu noonu bokk na si situation yi nga xam ne mooy taux d'intérêt yi gën a kawe mhm. yi yi Sénégal ma sa sañ loolu daf lay won ni concrètement et mhm. indubitablement dans le futur proche mhm. di nga gis ne Euh, euh, euh, sur une système une mm-hmm. mm-hmm. condition de financement de condition de financement charge de la dette de forcément charge de la mm-hmm. dette financé c'est si de l'autre bu fayda contribuable indirectement a yaa ngi koy fay. Mhm. te tamit loolu mooy fi mu nekk nii man man man en tout cas léegi man amu preuve nekkuma si appareil gouvernemental nekkuma seen réseau xaw ma fu ma nekk. Mhm. mais man say sama xel sama njort ñaaw na si cour des comptes. Mhm. sama njort ñaaw na si IGR. sama njort ñaaw na si. inspection générale d'État dafa ay cest a dire que kon Sonko li muy mooy daal kon république du Sénégal république bananière la c'est-à-dire dara dara dara dara baaxul maanaam bu fekkee dama bëgg rek attaqué Amadou Ba Macky Sall yow yaa ngi attaqué li nga xam ne yow yaa ko jiite. man dama bëgg a xam man c'est à c'est à dire euh, euh, direction budget ak mm-hmm. fonctionnaire yi fa nekk. yow nga nekk premier ministre nekk le premier fonctionnaire yow yooyu ñoom nar leen jiite je je sais pas moom ban. Mm-hmm. ban ban ambition la nar a am pour jiite yow ak ban crédibilité la war a am. Mm-hmm. sama dernière phrase nag ma xam naa ne côté boobu mooy nag euh, malheureusement. réew. waaw. njiitam. Mm-hmm. day sant jiite. Mm-hmm. wala mu sant jiit li. Mm-hmm. bu jiitee. réew waaw bu jiitee waaw nga bu jiitee. bu jiitee réew bi jiitu. dëgg la. waaye xam nga lu tax. Mm-hmm. ndax boo bu ñu la demee yow yóbbu la nga xam ne jot nañ la teraanga bi gën mm-hmm. askan ne la dénk naa la sama bopp. Mm-hmm. ñu ne la nag comme loolu dafa rëy ndomba tànk bu rëy la dañ la bëgg a waatloo. askan wi yéen ñu ngi jàkkaarloo ak yow. ñoo ngi nii ñun àttekat yi gën a kawe si réew mi. muy conseil constitutionnel. ñu la seede ñu ngi la ñaan nga waat ne yow réew mi di nga ko jiite sa aqulay taala teg ko ko ci sa ngor te saa su réew mi di nga ko aar waat loo bi ñu lay waat c'est-à-dire que dañuy soxla ci yow gaaram léegi yow décision yi yow yow muy waat yow nga nga xam ne yow lañ ko dénkee yow muy waat boo ko dénkee keneen ça veut dire que yow jiitlu nga sa bopp kon réew mi jiitlu la parce que réew mi ki nga xam ne moom amul benn responsabilité politique ndax waatul kooku confiance bi muy am ak moralité bi muy am yow doo bi nga waroon am moom du ko am parce que amul benn engagement si te loolu moo ñu dal léegi nag moo tax ma am nag benn njort bu ndaw muy lan xaw optimiste tuuti sama yaakaar nag xaw na yàqu si mm-hmm. bëri si mois yi passé mais am naa benn dernier njort mm-hmm. maanaam Diomaye mm-hmm. ma wax ak yow xaw naa am njort doon na nit koo xam ne am na fierté ak ngor dëgg la parce naa tamit si famille la maan la du jiitewul Pastef mm-hmm. si coalition bi am na si ay nit mais c'est biir mm-hmm. parti bi tamit daf si xaw a faible pour l' instant mm-hmm. te amul parti boppam ça veut dire que législative bi du si demal ah, pour yow dafa xaw a faible quoi pour yow dafa xaw a am toute fragilité au niveau politique ah il est structurellement faible il est structurellement faible bon mais c'est-à-dire que man personnellement c'est que tamit xam nga affaire yi tamit si si personnalité si jublu même à sa place peut-être sax yàlla moo xam li tax mu teg fi jomaay parce que man ak man xam nga lu tax dama la yàgg a sot parce que malheureusement matière bi nga xaw a niroo. waaw parce que man à sa place dëkk bi am na crise bu yàgg. ndax ma nekk ONU ma nekk sama ginnaaw pour bañ ma am assuré attention def fi def fi benn discours nit ñi di la tudd di la tudd nga def fi coup d'éclat. décrédibiliser république loolu boo ma ko defee doo ko def ñaari yoon. mais

peut-être que vous n'avez no, pas voté pour lui. Mm-hmm. Mais moi, je vais faire film. Mm -hmm. Structurellement, Dieu m'a amour donné actuellement pour sa mm-hmm. défense. Mm-hmm. pour sa défense. Mm -hmm. euh, euh, législative, mm -hmm. et Dieu m'a même à mon caractère, même si vous voulez ça résister, même si vous voulez ça, c'est un décret avec les armes. Wow. Euh, il a que le pouvoir réglementaire. Quand le pouvoir réglementaire, kan moo ko kon. vous hein? ne kon bu comprendre lu euh, structurellement euh, il y am quelques faiblesses etc. donc euh, que à part le décret il n'y a pas grand chose donc pour le faire il di dérouler une stratégie pour am pour se renforcer quoi comprendre tu as tout compris, euh, hmm. vous avez tout compris, parce qu'en français, je vous vois, est-ce que c'est Diofal Diop, dernier bastion pessimiste, optimiste, bima à moi, Moi, actuellement, hmm. c'est la ville, c'est-à-dire que dans ma carrière, Bassir Diomaye fait structurellement, il est faible parce qu'il n'a pas un parti qui est euh, entre ses mains. Quand on est au Sénégal, pendant des hmm. décennies, il y a des amortis.

am fa doole am fa benn gëdd boo xam ne. Mhm. même numéro de bu fa nekkoon ça y avoir une crise mais mën na il il a du poids. ce mhm. c'est pas le cas. ce n'est pas le cas tu Diomaye boo xoolee sax dama ragal sénégalais yi dul Pastef yi ko bëgg ñoo ëpp pastefiens yi ko bëgg. Mhm. voilà donc lui il a ça il a ce problème là c'est-à-dire en termes de légitimité sociologique. il est pas plus fort dans le Pastef non seulement mais tamit.

moo tax ma ne la benn benn optimisme laa am ay si Diop Fall. maanaam législative yi. Mhm. du doon Pastef. waaw. amul majorité. waaw lan moy xew. manam majorité la ci bu ko Pastef amul wax ma la sax majorité absolue. waaw. ak seen démarche ndax bi ñu créé coalition bi nonu Sénégalais jox leen si benn leçon. Mhm.

moom mu xam naka la man man nga xam ne moo yore exécutif relation ak législative bi ñu ñu ñu mën ñu mën a demee. loolu bu ko xamee si la ñu ñun tamit mën a am base bu leer si juger moom personnalité am ak ndax doon na koo xam ne il est digne